di jiital ci nuyoo bi euh, ki nga xam ne mooy sëriñ Habibou Mbacke moom sëriñ Fallou nga xam ne moom moo jiite mbooloo mi euh, te it xam naa ci kàddoom sax mboxoon na ne mi ngi jaale euh, mbooleem ndaw yi nga xam ne dañoo wàññiku ci jafe-jafe ndox yooyu am tuuba ci xale yooyu fa wàññiku ñu toll ci juróomi xale mu ngi jaale ñëpp tey mastawu seenu njaboot ak seeni wayjur te di leen ñaanal njëggalul yàlla ñoom ñi dem mm. waaye li ëpp solo mooy 2017 ak tey dafa yàggut te mboolem wet goo mën a laal tam nekk jafe-jafe ci Touba maanaam di nga mën ne loxo ngi nii buñ mën a laal lii Touba ci kanam ñoo ko fa def te it mu nekk loo xam ne dafa jafe ci Sénégal tamit ak kuréel goo xam ne dafa taxaw moo xam muy dox ci diine moo xam muy dox ci politique moo xam lu mu mën di dox maanaam ñu dox ay at yu toll nii di wax ay chiffres ay 2 milliards te mosoo dégg maanaam benn bis boo xam ne ab scandalu xaalis dégg nga ko ci seen biir maanaam mosoo dégg ñu ñu ñu organiser mbir bi nga xam ne xaalis ak sénégalais ni mu mel waaye ñoom daa mel ne am nañ ci tawféexe sëriñ bi ba euh, kenn musta xalaat wala nga dégg luy niroog sax ne scandale sàngam am na ci biir Touba ca kanam moo xam dañ ne woon dañuy jënd nangam te jënduñu ko moo xam dañ ne woon dañuy def nangam defuñu ko loolu moom mooy première réalisation maanaam boo xam ne ni def nañ ko te Sénégal ci boppam dañ cee war a jànge ci ñoom lu ci des mooy euh, ci wàllum mbënd mii man tokkoor bii ñuy wax euh, nga xam ne dama faa dëkk. juddoo fa mu nekk tokkooru sañ Cheikh digganteem ak sama kër matul un kilomètre daanaka daawuma xëy suba ba ngoon jaaruma fa wala lu mel noonu mais oto ak sareet ak ku yorob tànk moo ci yem kenn mosu faa mën a jaar parce que ndox mi daanaka ndoxum Touba mépp ci côté boobu foofu la daan wersi bi ñu ñëwee ci première maanaam bi ñu defee euh, seen liggéey da gis na léegi tokkoor ba moom bu tawee léegi maanaam boo demee doo fekk toq ndox loolu maanaam euh, preuve bu palpable la boo xam ne ñi nekk Touba ñi ngi koy ñu ngi koy dégg kër sëñ ñaan Jóob googu nga xam ne boole boo bokk na ci yi ñu régler seen i problème man fa laa jànge alxuraan tokkoor maanaam déeg boobu nekkoon ci guy gi wax ku nekk xamoon na ni mel maanaam déegu guy ga bi may donga sax man daanañ ànd waa kër sëñ ñaan yi nga may dégg donga yu bari dañuy dem di fa maanaam dañ daan namm géej xam naa ndax xam nga <laughs> dañ daan dem di fa sëmb ji ndax comme ça boo fa taxawee sa xel rek ci dégg rek lay ci géej rek lay dem tey jii boo fa jaaree waxuma la jële fa taataa bi waaye dañ ko faa jële ba noppi non seulement maanaam tëli ko tëli boo xam ne benn tëli la maanaam tëli bu jaaru yoon nga ñëwaat ci euh, station sel ba nekk ca yoonu Mbàkke su masaan taw maanaam xam nga deux voies moo jógee Mbàkke ak Touba benn voie bi ndox mi da koy nangu ba nga xam ne ñiy dem Mbàkke ak ñiy wàññeeku ñooy ñooy ñooy juyaloo maanaam benn voie bi la ñu mujj séddoo fi mu nekk nii réglé nañ ko ba nga xam ne maanaam boo bu tawee ba nga egg fa maanaam amatul toq ndox woo xam ne dana fa des fu mel ne quartier euh, sexaw ga euh, noonu la ak euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ñu ko doon topp maanaam day jël temps bu bare baree bari loolu nag maanaam dafa nekkut loo xam ne ay waxantu la keroog sax saa njóogu bi ñu ci njëkkee waxoon mi ngi may tooñ naan ñoom ay ba ñu sol caaya rek seen yéene waaye tey jii boo xoolee euh, boo xoolee boo xoolee réalisation yi di nga xam ne lii du ay bàyyi caaya maanaam ay nit ñu am pas-pas am yéene ñoo ànd ak ñu am xam-xam maanaam def ay réalisation yoo xam ne maanaam mën nañoo wax ne nit defagu ko ci Sénégal tey da dem fu mel ne Thiès sa Seck def na fa naam ay réalisation tey da ngay gis ne depuis booba ak léegi Thiès luñ lu Idrissa Seck bëggati daa mel ne daanaka waa Thiès ñu ci ginnaawam parce que réalisation yu toll noonu te boo xoolee lii ñu wane nii fii maanaam Idrissa Seck defalu ko waa Thiès bu toll nii loolu moom moo wér ak feneen foo mën a dem maanaam dama laa bëgg wax ne rek réalisation bu toll nii nga def ko ci mennum at loolu moom mësee su koo gis mësee su koo gis ca dëgg-dëgg man bi ma déggee Touba Ca Kanam ñu naan ay un milliard. Mhm. après man bi réalisation yi di daw dama ne ñun policiers yi dañ ñoo yëpp. nan la ñu def ba xaalis bi ñuy wax ni moom lañ def ak ñii li ñu réaliser mhm. ci li ñu yor ak nu mu tuutee. Mhm. ak politiciens yi liñ ñuy bëgg a rey alal ju bari ji nga xamante ni bii ndekete ñi ngi koy def naan nangami milliard. xam nga bétti. man daal defe naa ni soxla wuutoo sori. pour réew mi dem. parce que gis nga modèle bii gis nga modèle modèle bii murid yi am muy modèle murid bii modèle bii modèle bii dafa war a nekk modèle u Sénégal parce que lii rek moo mën a doxal réew mi xam nga tey xaaruñu état ñoom pour dem comprendre xaaruñu état pour dem quoi Sénégal tey bu fekkoon ne Sénégal ci jëm boppam xaarut bitim réew pour dem peut-être li mu am dana ko jariñoo ba mën a teg ay mbir dem mais à chaque fois ñu ngi xaar lu ñu yelwaani lu ñu mais ñii xaaruñu lool pour dem dégg nga kii li wax nee na mbënn mi dafa am. Mhm. ca Touba. idée ba sosu foofu. ñu gis yëf yi ni mu newee idée ba sosoo foofu mais ñii vraiment wax dëgg ñii bu ñu yoroon ñii bu ku leen joxoon budget Sénégal ñu tëj réew mi ah non mais c'est koo xam ne un milliard. ñi yor ñi yor ñi yor ñaata 3000 milliards mënuñoo mbaxal. yow nga yor un milliard ceebu jën. ñu ne déet nga joxe dessert mais noonu la rek joxe boisson joxe lépp ba noppi nag naan li ma yor sax moo kiiwut waaye bu kii woon ma gën a kii ñii ku leen jox non mais vraiment vraiment xel dal na ni sénégalais yi am na ci ñoo xamante ni ku bëgg a liggéey di nga liggéey ah, mais ku bëggut liggéey nag yaa xam vraiment ñii fi ne ah. kon Kër Massar liñ fa def ñaata la Kër Massar 15 milliards yoo xamante ne bi costume cravate daan ne bon on a débloqué 15 milliards gisuñu ko mais xoolal li macha allah dem ba tëli Touba ca kanam nag ku ne moon tëli nañ nag man donc <laughs> du ma ko gëm ndekete tëli nañ macha allah Touba ca kanam ca kaw ca kanam. laa ilaaha illallaah Sénégal ca kanam ñoom nañ ñëw après jël Sénégal ca kanam. <laughs> bàyyi ngeen lii am na ñu neexul. parce que dafay wane ak caay-caay gu daan am ndeke. waaw imaginel fu ñu def. 1 milliard ñu wan la li lépp. Mm-hmm. ñu wan la feneen foo xam ne ay 15 milliards. ay vingt milliards ay soixante milliards fu ñu ko def ci Sénégal ñu ngi koy wax rek ci suba ci rajo bi te solution mënu faa am ba tey moo tax lii moo tax boo dégg ma la am nañu mu neexul mooy am na ñoo xam ne seen caay-caay da ciy feeñe que ni ndeke li leen sénégalais yi joxoon defuñu ko fañ fa ñu waxoon parce que bu ñu ko ca defoon Sénégal dootuñu jooy mbënd sëñ Baara wax na ko léegi bu fekkee ne lii ñu gis mhm. buñ ko dolliwaatee defe naa Touba moom dootuñu fa wax mbënd ndax dañu laaj sénégalais yi di ko def foo xam ne dañ leen koy vidéo wan leen ko li ñu jaaxal nag ci suñu gars yi ñuy wax naan ñi ngi ci la wax dañ naan def nañ rek waaye kenn du vidéo kenn du wane lu ñu def réalisation yi doo ko gis xanaa dañuy dem ba jam ñaajo filmer la ay euh, immeuble yu waa defar jox ñu ko mais la ñu def ca mbënd ma ba léegi kenn wanagu ko sénégalais kon Touba ca kanam ñi ngi ñaan ñi nga xam ñoo ci dugal seen ub dërëm it yàlla yàlla fay leen ko parce ay sénégalais ñoo toog rek di mois Euh, ci seen numéro téléphone yooyu ña ca def seen ñaq yàlla na yàlla fay leen. Eh, damaa xaw am tuuti gàcce. Euh, bëgg naa ci dëkk bu sell bi ni ko def ak ñi ko dénk waa Touba ci kanam ñu leen di félicité nag bu baax ñii nag ñoo jar a félicité. Ah parce que Touba ay temps at ci gannaaw danga naan dégg taw na. fees na ndox nangam ak nangam. Mhm. te comme li Cheikh Bara wax nee na problème mu ndox moo taxoon jóg Touba ca kanam bu ñu demee ba tali ca nag goudronné ba pare évacuer leen lu bari defaral leen loo xamante ni bu ndoxee bu ndox yi demee eh, tawee. ñu évacuer ko ci sur le coup defe naa ne jar sant yàlla léegi nag. day tax rek président Macky mi nga xamante ni mu ngi seetaan télé yi te xam naa ne li daw Walfadjri du ko ump wala ñu koy seetaanal bokk. ñu tegal ko euh, vidéo Touba ca kanam bi moom mu woo ñi nga xamante ni déboursé na xaalis ay milliards yi jox leen moo xam Kër Massar la moo xam fu mu mënti doon mais ñu rendre ko compte. mbënd mi nañ ko jox waa compte ba pare balaa ñuy jox Touba ca kanam nañ ko rendre compte. ko jox Touba parce que nag mënul nit ki mënul am moins de 2 milliards réalisé ci lii yow nga am ay 1000 milliards 700 milliards 15 milliards mënoo ci réaliser dara quand même. loo xam ne ko seetlu mhm. mooy ñoom au sax ñu dem di louer ay ay ay kii mais da ngay gis ne dañu naan machine ba dem nañ jëndi ko jëndi malgré que prix yi tuuti lañ yor mais dañoo dem jënd machine mais gars yi locataire ba ca la ñuy tuutee yow fii ngay dégg ñu naan loué nañ ay ay moteur yi pompe loué nañ ay camion loué nañ mais ñii bu ñu soxlaa benn affaire sax ñoom ci seen xaalis boobu noonu ah. dañuy dem jënd matériel bi indi ko macha allah donc lekkukaay xaalis yoo xam te ni ay ay euh, point la yoo xam ne fu bu bés buñ ko obstrué woon rek Sénégal mhm. day daal di développé mhm. xam nga Afrique looloo ko tere développé problème bi Sénégal am moom la yeneen pays africain yi ah. am mhm. mu mel ni nag genre euh, initiative yi lu jara euh, Fatmata say benn minute rek baal ma benn baat rek laay laay laa ci laa ci dolli mooy. maa ngi leen di ñaanal yàlla ndax. ñoom ñii toog noonu toog ci kanam suñ mun Muntaxa ñëpp xam naa leen mbedd yi ñuy wane ñëpp xam nañ leen. ñun nag bu dee ay murit lañu ñu kenn ku nekk mën a taxaw ne suñuy maam ñoo njëkk defar ab raay. defar defar ko maanaam gas ab raay defar ko. fii ci Sénégal suñuy maam ñun murit yi ñoo ko njëkk def. Mm-hmm. Mm, Touba ca kanam may nañ ñu tey ba ëllëgee bu suñ maam yi taxawee ci kanam suñ Touba ne ko ñoo gas raay bi. ñu dinañ mën a taxaw ci kanam suñ Tuubaa ne ko ñoo defaroon bënd ma. waaw loolu nag tawféex la buñ buñ ñu defaral ñoo ngi leen ciy sant. jërëjëf mu ngi noonu dañu topp rek uh, ndigalu Serigne Touba Xaadimu Rasuul. tamit hmm. topp ndigalu seen uh, kilifa ndax mag moo taxaw daal di uh, joxe bii leen ndigal ñoom it ñu daal di ko topp te ba léegi gisuñu ci lenn loo xam ni safaan la kon topp ndigalu mag aussi lu am solo la lii lañ fi indi woon tey ji ci kàddu mag ñi ndax lii ci mag ñi la sosoo ba réalisation yi man a am ñu leen ciy ñaanal te aussi di leen ci félicité tey wax sénégalais suivre genre modèle bi ngir mën a dem waaye tamit suñu état ñu mën a corriger bu baax a baax. li nga xam ne moo di seen ay erreur lu am solo la kon lii lañ fi indi woon tey ji ci kàddu mag ñi di leen jox dig daje beneen alxames incha allah ak yeneen i mbir yu am solo rek ñu indi ko ci Taku Show.